waaw salaamaaleykum tey dama leen di wane seen doom muy Abdou Guèye borom Mass Zeng tey Mbarta bi TV moo fi ñëw nii seet si Abdou Guèye di ko ñu wañ ay bagages am yu baax yu normal tey dañuy laaj Abdou Guèye ci lépp daal ci lépp lañ ko war a laaj tey waa Abdou Guèye nuyu naa la. am ah, maa ngi lay fay maa lay fay sama xarit sama doomu ndey maa lay ziar bu wér di nuyu ñëpp di ñu ñuy seetaan ak ñuy déglu di kontaan si bu baax a baax. ndeysaan dégg ngeen Abdou noonu. mu wax li ay baaxam tey Abdou Gueye noo ñëw di xool say bagage xool tey foo jóge ak foo jaar ba nga sokkeeku ne ak liggéey bi nii ak lu mu mettee ni ñu xool Abdou Gueye nii tey ji te Abdou Gueye tey ji bu ñu ñëwee fii nii loo ñu mën a wax say bagage tey waaw xam nga rek du kontaan si yow yow mi ñëw xam nga dëkk ñu micro ñuy wax quoi xam nga li la mën a wax mooy fii daal ku bëgg lu baax xam nga lu nice da nga ñew fi ñu defal lu baax xam nga ànd ak yow defal lu xamanteni dal bo boo mom sa xol dina sédd di nga sañse ñëpp dinañ xam ne yow mi sañse nga quoi si loolu lay dox quoi si loolu daal la ñuy yëngu loolu ñu yaré loolu tarbiyu quoi lo dal la am lu ma wax lool ndeysaan waaye sa départ la bëggoon xam fan la boo jógee tay départ bo déparé ba ñëw ba fi ñu naan Abdou gay Abdou gay da ngay dem ba marché deng da ngay dégg Abdou gay Abdou gay Abdou gay nga dem Touba Pikine dem fo jëm ci àdduna da ngay dégg Abdou gay tay Abdou gay tay lan mo la may loolu waaw loolu li ko may mooy yéen rek yéen ñuy dooleel xam nga rek xam nga fi moom ku ñemee rek dañ laa doy xam nga nit ñi moom fekkee yàlla def nga seq ñoom jàmm xam nga ñoom coloré xam nga seq ñëpp jàmm loolu yàlla moom moo koy def quoi ndax man defalu ma loo xamante ni danaan Abdou Gueye Abdou Gueye si aar bi am na ñoo xamante ni xam xam nga ñoo ma jiitu si aar bi te amuñu loolu quoi loolu nag ñu koy sant yàlla bu baax baax di nekk seen ginnaaw rek di def ndànk-ndànk loolu rek la di xam ne dañuy soog a door rek xam nga di sàkku ñaan bu baax rek naa damay laajte ndax place bi place bi kasa la wala du place bi. non am na beneen bu nekk si biir bi mooy caat bi quoi taaw bi mi ngi si biir. ah bii mooy caat quoi bii mo mujjee juddu waaw bii mooy caatu place bi ndeysaan déggal Abdou Gueye Abdou Gueye nee na bii mooy caat bi bii moo mujjee juddu hmm. ah léegi passe boobu gis du après duñ fa dem xool bagage yi fa nekk ak yooyu noonu yaa ma gën a xam ok amul problème après dina la woon ay bagage yu rafet incha allah rabbi loolu moom des na si yéen rek bu ngeen dawul duñ daw incha allah nga maa wax ay bagage yan bagage façon bagage nga indi tey jii ravage yoo indi fii tey bagage non bagage yi bëri na am na ay tisa xew am na ay cristal am yoo xamante ne ay saabale la ay velours tout ça am na jesner am na cubu tak am na lépp loo xamante ni rek jigéen ñi koy béggee rek mi ngi si biir desan yene deug Abdou gay mom tey jii bu ñu jógee fii dañuy dem ci place moy taw nee place bi tay moy chat ah moy chat waaw après dañuy dem ci taw benn problème dem na si yow boobu àggee sama frère Cheikh Fall mo fa dina la won yu rafet yu fat inshallah rabbi ndaysan tey damay gis sama benn xarit bo xam damay and ak mom mu may wax lu baax muy Cheikh Ndeye hmm lo sekk ab Cheikh Ndeye Sarr loolu sekk tey jii ba ngeen demee ni affaire bu demee ni muñ kontaan Cheikh Ndeye Sarr maanaam moom suñ diggante du loolu mom lu yalla dogal la quoi mo bu ma waxee ma ne moom laa mujjee xam fi téere waaye moom ma yalla booleel quoi te ragal pété day xañe wërsëg yalla moñu bolé manam mom mom a mom xamna yalla moñu bolé lool kay mënu su dara ko waaye yéen dégg lool waaye yow soxna si anam soxna si mi ngi fi mi ngi suñu kër soxna si ben soxna nga wala ñaar non Ben la am ko waaw lay bañ bañ am ay ben ni looy la dal mo xam nga rek ben bu baax mo gën ñent yu bon lay sant a dégg Abdou gay après dañuy delluwaat place ba légui léegi gis Abdou gay dafa melni client yi dugg ni du xol bagage ni waaw am problème waaw loolu am na waaw dañ leen ñëw xam nga si Afrique bi ma wan yu bees tàq quoi yu bees yoo xamante ni ay tissu cristal la yii tissu bu bees la ku bëgg tissu bu raar rek na nga ñëw fii quoi kii bu bees tàq la rafet na raar na ku am xew boo xamante ni xewu jàkkaarloo la wala xew bu riche da nga ñëw fii Abdou Gueye mu xoolu rafet sansé la loo xamante ni boo ko sansee dina rafet dina raar te dina jongoma xam nit ñi dañoo bëgg lu raar bëgguñu lu bëgguñu loo xamante ni la te si bët quoi am na yeneen na yeneen xam nga ngeen a fekk affaire xaw a jaxasoo nag moo tax quoi eh? waaye gis nga li train lenset bi la soo ko nii bi da ngay dox xool bi yëpp gars yi commande la commande la quoi bi da ngay dem ba foog toog ñu commandé la ko six mois nga soo ko si jot loolu da ngay dem rek jënd quoi da koy commandé bu bees tàqali li bala nga koy am foog nga ñëw Abdou Gueye Mar Zeng côté bi ni jaay ginaar quoi am ñuy bëri nag Abdou Gueye bëri na waaye bokkuñu quoi am tamit bu la quoi bi mu néewata la nga tisi si buraar rek boo ko ñëwul fii am na yoo xam koy dugal ci biir fa mën mën a wane foog nga ñëw ba fi ñu sogal ko génnal quoi si ko nii bes tàq la jël ko kaw ba suuf finition la quoi yaa ngi gis cristal bi travail à nga ko tamit genre bi tamit yu la sans départ rek ak catégorie quoi gis nga

numéro téléphone bi nga numéro téléphone bi 77 232 62 71 77 232 62 71 beneen bi sama frère bi la Mbaye boo ñëwee boo fekkul Mbaye nga fi fekk numéro am 77 120 69 09 77 120 69 09 boo ñëwee ba côté bi ñu jaay ginaar yi rek jaay côté ginaar yi sax boo laajtee Abdou Gueye ñëwaat ko boo ñëwee ba suñu yaayee ginaar boo laajtee place Abdou Gueye ñu la ba fii ci naa xam te boo ñëwee na la xool lu rafet lu sañse loo xamante ni boo ko sañse ñu laaj la ko loolu moom maa leen ko wax quoi incha allahu rabbi soo ko ne yëpp yu bees la